desul ginnaaw liggéeyam desul ginnaaw dina gëstu dina dem fu ngir di jariñ réewam nga xam ne que dafa bàyyi opportunité yu bari ngir jariñ réewam kooko di kan soxna Maguette Mbacke mu sëñ Moustapha Mbacke gaynde sebi ca sébi xotaan jigéen bu man góor la euh, kon bu naan euh, la xew ca Dubaay am na jàmbaar yu nekk Dubaay am na jàmbaar yu nekk Mbuur am na jàmbaar yu nekk France foo dem ci àddina rek ku baax a nga fa ku bon a nga fa ba ci internet lu baax a ngi ci biir lu bon a ngi ci biir ñun nag lu bon wax ko daf ñoo soxalul moo tax fësal lu baax mooy lu soxal soxna Maguette Mbacke mii nag royukaay la ci bépp jigéen te tamit laaj nga suñ réew ak suñ njiitu réew kuy góorlu lu mën ci puus ko ñu def ko bu baax a baax ndax bu demee day jëriñ boppam jëriñ mbokkam jëriñ réewam soxna Maguette Mbacke yaa ngi ci Tektal TV àdduna wërngal këpp di la seetaan lan ngay nuyoo ñuy seetaan ba pare ñu soog indi li waral ñu indi la fi ndax jikko yu yàqu yi ak bëgg-bëgg yi nga xam ne mu ngi dal xale yu jigéen yi nga war ñu fan nga tàmbalee ba fan nga jëm ak euh, royukaay boobu nuyoo ñuy seetaan Tektal TV surtout waa diaspora bi yëpp euh, mm-hmm. maa ngi lay nuyu mm-hmm. di la jox sa wàccuwaay di nuyu senegal gépp mm-hmm. di ziyaare ñëpp itam di dugg ci këri dina yëpp sama papa yeeg sama nijaay yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu ak sama maam yi ak sama yaay yeeg ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp mm-hmm. di rafet lu toogaay bi ma toog fii tey mm-hmm. ndax da ngaa gis rek liggéey bi may liggéey nga wóolu ma dama mm-hmm. soxna si kat yow jàmbaar nga dama bëgg nga toog sama plateau ma invité la te loolu lu rëy la ci man bokk nga ci ñiy jàppale ndawi réew ndax lii xëy na opportunité bi ma am tey ba nga gis sama liggéey mën maa invité ci plateau bariwul ndaw ñu am opportunité boobu donc loolu it maa ngi la ciy jaajëfal ñoo ko bokk mais soxna Maguette Mbacké boo mm-hmm. gisee. Mm-hmm. ma di la sawar ci invité la. Mm-hmm. ñun Tektal TV. mën nañ wax lu baax ci nit. mais lu bonu nit ak lu bonu fenn soxaluñu. maanaam tey euh, danoo war a. valoriser jikko yu baax yi ñu fésal ko. comme jikko yu bon yi fés na ba pare. léegi nag dama leen di jox numéro ngeen jël ko en attendant pour da ngeen ko soxla. ngeen bàyyi ko xel bu baax numéro yi am na whatsapp. ak fépp nga def 78 532 22 deux 78 532 22 22 nga def beneen bi 76 452 35 35 76 452 35 35 76 bi nag léeg-léeg jot ko ci mën na jafe mais dinañ ci wax ak moom léegi mu ngeen koy jot parce que lii 78 bi 78 bi yanu dafa diis. kon di ngeen koy jot ci yépp dina ci wut pexe bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. soxna Maguette Mbacke euh, léegi ñu bëggoon a xam. Euh, man xam naa yaay kan ba pare mais kii seetaan. bëgg xam yaay kan xam naa ne. doomu sëñ mu Moustapha Mbacke gaynde sébi nga. nga moom sëñ Modou Fatou Khari. Euh, ci sébi xotaan di jàmbaar joo xam ne ko wax dëgg yàlla. Euh, day bay di dundee di liggéey lu lew di def ci yoon wi. maandu. Ah. nga xam ne ku ko dénkoon ay milliards sax. na nga ko ko dénkee nga koy fekkewaat. Hmm. nga xam na que seq naa ñi gën a rëy ci àddina bi. Hmm. lu rafet. muy ay njiiti réew ak lu ne te doon mbàkke mbàkke boo xam na que mm-hmm. luy ñoŋal yoon wi rek ci lay nekk ak taalibe kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mu doon koo xam na que tamit dafa yar njabootam ci mm-hmm. éducation bu baax mm-hmm. nga xam ne que diine bi du manqué mais beneen côté bi tamit du manqué léegi kon li nga xam ci yow yaak mais buñ la bëggoon xam Mhm. yaay kan fa nga jaar ca Maroc mhm. euh, opportunité yi nga bàyyi mhm. li nga dugg ci liggéey parce que dama la jox euh, li muy liggéey ci boppam ngeen jàpp tur bi bu baax a baax a baax Maggi First ah Maggi First mooy lan application la euh, site web la li ci biir li mu ëmb ci njëriñ nga wax ñu yaay kan ba pare soog a dugg foofu waaw déjà damay jàll ci damay appuyer ci benn point boo wax bu ma ñor muy sëñ Moustapha Mbacké ci sama parcours bi nga ma laaj mënumaa wax sama parcours te tudd ma ko day nit ku ma jàppale ndeysaan moom soxna Fatou Pouy sama yaay soxna Fatou Pouy Moustapha moom mention ma jàppale ci jamono yu musuma seetaan ci sama àdduna waaw fu ma mës a taxaw rek bu ma xawee pant tuuti dina taxaw pour redresser ma mm. ci sama côté ci côté yëpp nag mm. te damaa toog ci plateau tax mu koy waaye li nekk sama biir xol mm. ma jëmale ko ci sama baay boobu moo ëpp li ma feeñal sama yaay it ma koy sant di ko gërëm mm-hmm. ndax yàgg na maa taxawu musuma seetaan. macha allah muy soxna Fatou Pouy jigéen bu baax. waaw mm-hmm. euh, boo ma laajee sama parcours it dama ciy sawar. damay mm-hmm. benn euh, xale bu jigéen. Mm-hmm. bu jàng ba yegg ci yenn niveau yi. Euh, doon commerce. bàyyi lépp doon commerce. doon dukki di jënd ay bagages bi dem di ñëw. commerce Sénégal ku ne xam ne yenn saay yi mën nga ci rencontrer ay difficultés. leb beeg ñàkk fay beeg yooyu. ndax man sama passion daanaka. Euh, ñaari passion la am informatique ak commerce ñaari yëpp laa boole. ñaari yëpp nga boole. léegi bi ma demee bay commerce na sama papa ne ma lan nga bëgg a def ma wax ko mu yëkkati xaalis jox ma. Hmm, ndax ñun doo xaalis bu jox ma. ndax hmm. ñun ay doomam ñëpp la dimbali du man kese jigéen ñu ci bari jàppale na leen. Hmm. jox ma ma commencé di commerce commerce bi daanu daanu. daanu te musta toog ne ma aji ana xaalis ma la joxoon musuma laaj dara. non saa gane ba dem teer lu la yóbbu teer. xëy na nit ñi dañ duñ la jàppale. ah da ngay da ngay duñ la fay affaire yooyu musumaa toog ne ma fu xaalis bi dugg mm-hmm. musumaa laaj dara ndax xam na ne man doxuma ci lu amul la mm-hmm. xay na ndok ndok mën na dal ku nekk ci àdduna mm-hmm. sant di ko gërëm sama yaay nag surtout niiroon ma ci moment yu métti yu ma dul fàtte sama àdduna bi ma toogee toog nag sama njom sama jom mayetuma may dem ci sama papa di ko wax dara ci laa ne comme jàng naa ba am yenn niveau yi te daanaka informaticien laa ndax xam naa ci ay notion ci laa fi jógee dem Maroc bi may dem Mhm. sama papa yi jàppale ma ak sama yaay mhm. bi ma demee ñetti fan laa fa toog am fa contrat CDI durée indéterminée hmm? am fa salaire bu baax macha allah macha allah waaye comme sama passion yi dafa nekkoon sama e, ci ci man itam mosumaa mhm. xaaddi mais Maroc def nga fi ñaata at après def naa fa deux ans et quelques deux ans et quelques doon liggéey ci société bu ñu wax Exib ñu liggéey ci wàllum lan ordinateur lañ nekk ordinateur waaw ak réseau téléphonique yooyu bi ma fa jugee après ci laa toog toog toog daal ba dajan benn taalibe sañ bi tamit ku ma jàppale ku tudd monsieur Youssou Diop di directeur Imomédic bu Dakar bi nekk Sacré Cœur wetu mm-hmm. boulangerie jaune benn jour ñuy waxtaan rek mu ne ma yow lan nga bëgg ma ne ko fekk ma naan ko man de tukki mi xëy na man ngi am salaire bu baax waaye bu ma sañoon su ma damay ñibbi sama dëkk nekk sama wetu papa mm-hmm. di ko jàppale mu may yónni di ma di ko di ko taxaw mu ne ma lan nga bëgg a def ma ne ko man de bindoon naa benn projet mais dama ko denc doon xa doon doon ne naa dajale Euh, ñibbi Sénégal investir mais hmm. nekk bitim réew xëy na Maroc sax nit ñi xeeb nañ ko waaye dëkk bu baax la nit ñaa ngi fa di fa tedd hmm. nekk fii tamit day metti ndax ay am na loyer boo war a fay hmm. di nga lekk di nga naan di nga yónnee Sénégal moo tax mosuma am opportunité dajale pour ñibbi investir ci li ma bëgg a def dëgg léegi Youssou Diop ne ma soo waxee de li nga bëgg man dinaa dinaa financer projet bi ngir jëmmi Serigne Touba rek ñu ma yaakaar ak sa baay lim ma defal ndax sa baay defal na ma loo xam ne du ko nettali wax dëgg yàlla moom it ma koy sant di ko gërëm ma ne ko ah mu ne ma waaw mu yëkkati xaalis bu takk financé société bi commencé financement société bi mm-hmm. bi mu commencé financement société bi après man tamit man comme sama bëgg-bëgg mooy Macky Fass waaw ci laa démissionné sama liggéey ñibbi nga démissionné fële bàyyi fa sama contrat ak salaire bu baax macha allah ñibbisi mm. bi ma ñibbisee itam mm. les choses ne sont pa comme je les pensé nga baal ma ci tubaab bi waaw <laughs> ah, nekkul ni ma ko yaakaare woon melut noonu ndax xam nga rëccu aw ma benn regret. Ah, parce que xam naa ne. li ma indi du lu ndaw. Mm. ndax lu ma togg ay at. Mm. te li ma indi itam xam naa ne euh, yu mel nii lañ soxla ku mel na yow laa soxla pour pour nit ñi xam ma. Mm. waaye li ma indi daanaka du ma ne amagu fi waaye bëriwu fi. ndax application mobile laa yor boo xam ne. Mm-hmm. fi nga toog ngay toog def sa location oto. nu mu tudd Maggi Fast. Maggi Fast. Maggi Fast. Maggi Fast la tudd. Fast mooy lu gaaw ci anglais. lu gaaw ci anglais Maggi Fast. waaw Maggi ça renvoie à mon nom. Mm, man Maggi Fast fu ku dugg gis ko. boo dugg di nga ko gis boo duggee Google boo tàppee magifast.com di nga am accès ci suñu site direct. Mm-hmm. soo su la neexee nga dem Play Store wala App Store télécharge application bi directement am ko ci sa téléphone. à tout moment nga koy utiliser. Mm-hmm. donc comme je disais Magifast est en partenariat avec plusieurs boîtes euh, voilà nit ki mën na toog bureau mhm. xiif xiif amul jotu genn mu mhm. def commande nourriture am mhm. dugg ci ab restaurant bu ko neex à part de bi am na ay restaurant yu nekk ci biir yoo xam ne ñoom partenariat ak ñoom nga dugg si biir euh, commandé euh, nourriture bu la neex livreur bi livré la ko ba sa bureau ah bon comme Sëñ Fallou Mbacké Diop même bu bëggoon hamburger dugg ci site bi mën na commandé ñu indil ko hamburger mën na commandé pizza hamburger mm. lu mu bëgg mën na ko commander à la minute ñu indil ko ko am nañu ay livraison livreur yu yu xarañ ndax yóbbante express lañu associé ci livraison yi te ñoom ku ne mm. xam ne ñoom mm. livraison moom ñoo ko mën ci Dakar dibi tamit day am dibeeg lépp a ci am yaa sa poulet dibi lépp mais caaf moom duñ koy <laughs> caaf moom dugaluñ ko caaf dugg ko ci <laughs> léegi hormis <laughs> là aussi dañuy def location auto oto yu xarañ la ñuy am. oto yu xarañ ku nekk bitim réew ni kon ñëw Sénégal bu ko neexee. balaa mu ñëw mën na jaar ci site bi. xam oto bi muy kii. waaw xam oto bi muy loué mu yabal sa mu jël si ko aéroport. déet dañuy def location ak chauffeur ou sans sans chauffeur. ah bu leen ci neex. bu leen ci neex. numéro yaa ngi doon ci écran bi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax. waaw mm-hmm. léegi bu la neexee aussi. Euh, comme li ma la wax oto yu mucc ayib lañ yor. Mm-hmm. oto yu daanaka yu ci bëri ay zéro kilomètre la. zéro kilomètre. waaw oto yu mm-hmm. bees lañ yor. Euh, dañuy defaale aussi. réservation di nga am ay range yëpp day am. range Toyota. Toyota limousine sax dañ koy am. limousine waaw pour ah, ñuy oh. def mariage. limousine moom dina saf dafa naa pay. <laughs> waaw waaye bo da koy jar nag. Mhm. léegi soo duggee ci site bi rek. waaw di nga gis euh, onglet yu bëri c'est-à-dire ay ay catégories. ay catégories yu bëree ngi ci am na mhm. location auto comme ni ma da ngay dugg fi nga bëgg rek. commandé mhm. comme te doo ci am benn jafe-jafe daal. te am benn jafe-jafe application bu gaaw la ñu yor site web bu bu mucc ayib la ñu yor. magifas point com. point com. Euh, am na aussi. application mobile. comme ni ma wax sànq su la neexee nga téléchargé application bi. application mooy voilà euh, magifas la. magifas tamit encore voilà. léegi kii tamit euh, am na. réservation d'hôtel réservation hôtel. réservation d'hôtel am nañ ko. Mhm. Euh, soo bëgg soo nekkee bitim réew comme li nga wax sànq. waaw da nga ko préciser maa ngi lay mhm. féliciter. Mhm. ñun waa diaspora bi ñoo gën a doon suñu doole. seen doole waa Sénégal teg nañu fu rëy nag mais ñee. dafa am lu nu boole boo xam ne que yërmande bi ak euh, ba nga xam na que. Euh, lépp luy xew te maanaam daal ñun ñooy seen bi gën a seetaan ci diaspora bi diaspora bi di gën a consommer ci àddina bi ñun cent pour cent waa diaspora bi la moo tax lu baax ci ñoom rek euh, mm-hmm. te du ànd ak daray dil mm-hmm. daray nax lu leer ak yépp loolu mm-hmm. leen bëgg moo tax ñu leer na fii lu leer a fi am kon bu duggee foofu rek dina am euh, hôtel bu ko neex. waaw mën na dugg hôtel yi gën a mag ci Sénégal. Mhm. ñu ngi ak ñu ngi ñu ngi ci suñu biir euh, système. Mhm. soo duggee rek mën nga def sa réservation en ligne. mën mhm. nga fay aussi en ligne. mën nga boobu dama ko fàtte woon loo jënd ci site bi wala nga commandé ko fi wala nga bëgg ko am nga possibilité. fay ko en ligne wala nga ñëw ba sur place nga fay ko. sur place am na siège bi fan lay doon. siège bi fan la. siège bi mu ngi Sébikotane. Sébikotane Sébikotane waaw mu ngi Sébikotane. léegi euh, dañuy defaale dañuy jaay aussi ay matériel électronique électroménager ak électroménager téléphone ak yëpp téléphone yëpp ñu ngi koy jaay ci bis moom daal mm-hmm. supermarché la comme li ma sama benn xarit lu bagage bu Samsung am rek yéen am ngeen am nañ ko bagage mm. bu Samsung am am nañ ko am nañ ay télé am nañ ay portable am mm. nañ bagage yu bari mm-hmm. waaw bagage yu bari am nañ ko magi fas daal li ma sama benn góor doon wax ku ñu wax Boubacar Faye ñu ànd sax bi ñu ñëw mm-hmm. mu ne ma yow dangaa yor supermarché te nit ñi xamuñu ko ndax supermarché nga yor daanaka loolu moom dëgg la ndax bagage yu bari ñu ngi koy jaay lépp mm-hmm. daanaka ñu koy ñu ngi koy defaale daal mm-hmm. waaw mais léegi location oto gis nañ parfois ay jafe-jafe am ci léegi bu jafe-jafe amee am yooyu di ko saytu léeg-léeg kii luwe mën na doon ku doy waar léeg-léeg kii kii luwe tamit mën na luwe sa oto ngir wax quatre jours mu dem rek raar après ñëw di lay bàjjana ma gaañu woon dafa demoon fee xeet yu mel noonu tamit nan koy lijjantee waaw yooyu yëpp dañ ko sóoraale hmm. euh, dañ ko sóoraale dans la mesure où ñun oto bi bu ñu la koy loué. Hmm. location bi journalièrement la. Hmm. mais dafa am benn compteur bu nekk ci biir bu ñuy wax ñaata kilomètre nga daw. ñaata kilomètre nga daw. exactement par exemple bu ñu la waxee ne oto bi loué nañ la ko loué nañ la ko aujourd'hui Mhm. dañ lay wax ñaata kilomètre nga am droit daw ci tey tey te itam oto bi fu mën a nekk ñun ñu ci suñu machine di ko di xam système GPS bi daf ñuy wax pas di mhm. ko gis sax mais système GPS bi daf ñuy wax fi oto bi nekk mhm. mais am na ko désactiver am dañ ci am jumtukaay yu xarañ yoo xam loolu yëpp sóoraale woon sóoraale nañ ko gis nañ ko fi donc côté boobu moom amuñu ci amuñu ci ragal am na aussi assurance bu dëgër boo xam ne ku de xas a def sa location boo ñëwee sur place nañ la wax nu muy daal application baa ngi ni xool ko bu baax baax ah. magi fës application baa ngi nii ngeen xool ko baax ngeen duggal seen bopp. xarañ ci mbir yi te xam ne lu leer lay doon léegi nag. ku ku ku oto bi sañ na bu ko neexee sinap. <laughs> sinap ci biir oto bu ko neexee tamit euh, estati. bu ko neexee estati bu ko neexee sinap. mais parfois yéen dóorkat yi nga xam ne dañuy jël oto bi ne maa ko moom nag sinap sama oto bi sama kii bi wala yooyu moom. waaw mais bu ko loué lu ko loué nombre de nombre d'heure bi mu ko am moo ko moom. parce que moo dépensé xaalisam. <laughs> Mhm. ngeen bàyyi ko xel daal dóorkat yi <laughs> dañuy te ko tey ñu lee bii ëllëg ñu lee bële ne bii sama bii sama bee bu ko defee ku ñu dóor nga naan waa kii manqué wul dara ngeen bàyyi xel bu baax a baax man nag damaa bëgg nag ñuy lee oto seen bëgg seen lee oto araamul quoi dara nekku ci. Mhm. mais tamit euh, lee oto nar ci jàmm daal di bañ bañ dóor nit loolu da ci baax bu baax a baax léegi danga ne mhm. euh, appartement meublé mhm. appartement meublé parfois boo koy loué te nee nga ku bëgg otel tamit te hôtel ak appartement meublé xëy na bii bu ndaw bi la bee bu mag bi la. Mhm. mais appartement meublé ñi nga xam ne que mhm. euh, caaxaana leen di tax a jóg dañu lee benn vingt vingt quatre heures rek yu mel noonu. Mhm. parfois mën na jàdd yoon daal léegi ñooñu côté bàkkaar be côté wala am yàllaa leen tere jàdd yoon yow soo yoon ko ci yow. ah kay suñu yoon a ngi ci ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi lijjanti waale côté boobu. mais xam nga nit ki nekk ci biir néegam. munoo lijjanti daanaka li muy def ci biir ñun am na ci ñu bari par exemple yow yaa xool notion boobu mais am na ñoo xam ne ñu ngi loué appartement meublé kese pour jaamu yàlla parce que seen kër dafa am xew am na ñu koy def pour dugg xalo xam naa exactement am na ñoo xam dañuy jógee dëkk ñëw ah. bañ a sonal kenn luy appartement meublé pour duñ déranger ay mbokk ñuy ñëw fii di may wala ku bëgg a liggéey par exemple am naa sama benn copine moom bu bëggee liggéey am na këram mais hmm. day dem jël appartement meublé pour une semaine ou deux hmm. liggéey li liggéey delluwaat seen kër delluwaat seen kër donc caaxaan moom wala comme daal comme ni ma internet daal am na lu baax am na lu bon kenn ku ne la la a jóg caaxaan ci nit la nekk nekk ci voilà ci nit la nekk te loolu yaakaaruma ni nit na koo gaaw a lu hmm. nit ki ci boppam bëgg ko bëgg a changé Mhm. mais appartement meublé yenn zone ngeen am zone yëpp wala fu nit. Euh, dañuy def dakaar Thiès ak Mbour. Mhm. donc ñu ngi couvrir euh, dakaar yëpp ñu ngi koy couvrir fu waaye soxla appartement meublé. mën nga mhm. dugg ci site bi xool. ku bëgg Almadies mën na ko am. Almadies mën nga ko am. ku mhm. bëgg almadi si bi xutaan moom commencé guñ ku bëgg ngaay mexe mën na nekk <laughs> ngaay mexe ñaanal ñu rek <laughs> bëgg nañ fa bëgg nañ fa dem uh-huh. waaw bëgg nañ fa dem ku bëgg derkle mën na nekk <laughs> derkle mën na nekk jëppal noonu jëppal Sacré-Cœur fépp fépp fépp appartement mobilier Dakar yëpp kay ñu daanaka ñu ngi ci site bi ñu dugg di nga ko di nga ko gis wax magifast point com daal magifast point com magifast point com njëriñ la fa njëriñ la nga fa nekk xaaral ma joxal leen numéro bi ah. moom daal day yombal àdduna ndax lépp da ngay toog sa kër def ko fa. ah defal 78. 532 22 22 78 532 22 22 beneen 76 452 35 35 76 452 35 35 numéro yi am na WhatsApp euh, soxna Maguette Mbacke ngay jot direct. Mhm. incha allah ngir waxtaan ci lépp lu ngeen bëgg a dugg bu baax a baax incha allah di nga ci am. Euh, njariñ bu baax a baax a baax a baax mhm. léegi ci biir euh, mbir yi mhm. mooy euh, da nga ne téléphone gis nañ tamit léeg-léeg euh, nit ki mhm. téléphone garantie yeeg yu mel noonu yéen a koy res wala nu muy demee en fait waa xam nga Samsung bu la jaayee appareil day am garantie vingt-quatre mois garantie boobu lay wàccaale dina am aussi satisfaction sept jours produit bu ñu la jaay day am satisfaction sept jours c'est-à-dire durant sept jours bu fekkente ne gis nga ci produit bi lenn loo xam ne arrangé wu la am nga delloo ko distributeur comme par exemple man maa ngi nii Sadio Mané yéene naa la Ballon d'Or. Mhm. yéene naa la Ligue des champions mais nag da nga maa fekk ma faral Real la moo tax bàyyi ñu jël suñ quatorze <laughs> quatorzième Ligue des champions. Mhm. léegi tamit ñu am tamit nga wax ñoom buñ ko jëlee ba pare. Mhm. Euh, nga wax ñoom ñoom Van Diaye ñu indaaleel ma tamit <laughs> euh, iPhone. 14 ah Real am euh, après nga dem Real sax baax na. <laughs> waaw bu defee ma am iPhone 14. léegi ku iPhone 14 comme bu waree génn ak yu mel noonu. nit ki bëgg bokk ci ñi koy njëkk am. ci application bi mën na nekk wala. Euh, pour l'instant loolu démarché guñ ko. mais jox nga ma idée bi nii. jox nga ma idée nii nii moom jox nga ma idée. Ah. nit ñi que nit ñi di man a def précommande sur le site. Mhm. loolu moom wax dëgg yàlla xalaatu ko woon. xalaatu ko woon kon nag idée boobu teel naa ko jox. waaw boobu moom Cheikh ci yow laa ko jëlee. <laughs> si dégg ko kon. Euh, soxna Maguette Mbacke nee na iPhone 14 bi ku bëgg a bokk ci ñi koy. <laughs> njëkk am ñoom dinañ teel a jóg pour bàyyi xel loolu. bàyyi ko pour précommande quatorzième lig ñoom 14 euh, <laughs> iPhone bu baax iPhone ñi jàpp nit ñi di leen diri tamit ëpp na de léegi bu ngeen bëggee def miracle dëgg téléphone moom nu ne wengal ngeen ko ñetti bët ak nii. Hmm. léegi def leen boo xam ne batterie bi day am une du wàcc. boobu lañ leen sant ak tamit airport yoo xam ne du am boîte bi quoi airport yi day dox ak te gaaw réer wala boo ah, réeree mu ne la fii laa nekk. <laughs> sama saar nga xam dañuy sañ sa pare jël casque yi rek wékk ci baat yi. Hmm. ndax bu waxee ñetti minutes téléphone rek bëgg a dee. nit moo tax <laughs> léegi tamit dañ bëgg a ñëw ci côté comme kii appartement yi doon wax. Mm-hmm. bu dee nit ki jël na ko. Mm-hmm. Euh, par exemple ku bëgg jënd appartement nag mën na nekk jën ku bëgg a jënd appartement waa loolu ñu bari ñu ngi ma koy laaj. Mm-hmm. Euh, ndax du ñu gën a foncé ci ci wàllum immobilier bi c'est-à-dire di jaayaale ay terrain yooyu mais loolu c'est un autre projet qu'on est en train de de de, programmer donc dañu bëgg bu affaire yi xawee dox tuuti dinañ ut beneen bind nañ ko sax ba protéger nañ ko donc ñu ngi ci beneen projet boo xam ne euh, ci loolu lay dox comme jaayi terrain jaayi jaay appartement meublé jaayi jaay kër mais loolu àndagul ak Magifas magi fas waaw bokkagul ci ci magi fas. Mhm. loolu c'est un autre projet. beneen projet incha allah. <laughs> léegi magi fas tamit euh, ku bëgg école école bu bëgg ku bëgg jàng école xeet yooyu wala duggagu leen ci wàllum njàng mi dara. déedéet wàllum njàng bi moom duggaguñ. duguleen duguleen yow Cheikh yaa ma jox ay idées yu baax nag. Ah, <laughs> man maa ngi mel ne waxu dof laa dëkk tey ah moom it dëkk <laughs> tey maa ngi joxe ay idées yu baax ah. waaw ah. boobu moom dugaguñ ci moom. Eh, mais nag eh. matériel scolaire. bu hmm. bu maanaam ay kay ak ak yooyu bu kii jotee. Hmm. bu euh, ci kanam tuuti. ñu ngi ci projet yi pour insérer ko ci Magifast la pour. Hmm. ouverture de classe yi matériel bureautique daal. matériel bureautique ko jaay waa ok Magui Fass daal ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax am na application ngeen hmm. dugg ci ak site web bi bu baax a baax. booy dugg nu muy def ko dugg ci site bi. booy dugg da ngay dem Google. waaw nga tàppee magifass.com. magifass.com waaw bu la neexee nga def. moo nekk nii waaw moo nekk nii waaw moom ngeen gis ci écran bi. waaw léegi mu dugg mu def nan. boo duggee. waaw après di nga gis. Euh, di nga gis Google defal recherche bi. résultat bi nekk nii recherche bi lay def nii waaw. exactement waaw après nga cliquer ci résultat de recherche bi di nga am accès directement ci site bi. nga dugg ci site bi. nga dugg ci léegi lépp loo bëgg ci sa àddina rek. exactement loo soxla dañuy jaay sax ginaar. ginaar fàtte nañ ko wax yàpp. yàpp mën nga def course ci sa. yàpp nag ak yàpp xar yëpp yàpp nag yàpp xar. yàpp bëy jën jën. lépp dañ koy jaay jën yu mag yi jën yu mag yi yabooy moom na jàll fële moom yabooy moom jaayuñu ko jaayuñu ko ok waaw <laughs> donc dañuy jaay euh, aussi ay kii salade yëpp la ñuy jaay bagage ku bëgg mhm. ay jesner tamit yëpp mën na nekk jesner dañ koy jaay mhm. parfum dañ koy jaay costume costume dañ koy jaay lépp costume yi sax maa leen di jëlee Maroc di ko yaa ko jëlee Maroc di ko it Maroc moom ku bëgg costume yi jóge Italie nag ah yooyu xanaa ah, nga boole ñëw kenn rek. ah comme yow waa diaspora bi ñu ne te nga ak ñoom. ñoom Cheikh Nar Bala. waaw ñooy dëkk bi day sañse. <laughs> ah ok soxna Maguette daal gis ngeen ko. Mbacke. Mhm. doomu sëñ Moustapha Mbacke gaynde Sébi. Mhm. non moom mu nga de léegi euh, boo gisee lii nii porte à la wa ah. mhm. nga xam ne que foofu man li ma siy metti. mooy euh, am na ñoo xam ban dalee dem Dubaï. juddoogul. damay cité suñ benn tante mère Magu ba mu delee dem Dubaay du léegi di yaayu Mohamed bu mag ak Abdou Khadir ak Jaara ak Adja ak euh, Abdou Khadir mm. ak Khadim mm. ak jiite Marème ca États-Unis ak euh, Assoumbène ak mm. euh, ñoom ñëpp ah fàttewuma kenn de ak tamit ñoom Assoumbène bu Ndey Faatu ak Anta maam kii maanaam tey ba muy dem Dubaay du léegi di liggéey di dem fu ne di ñëw nga xam na que tey bis yi muy woor rek maanaam ci année bi boo ko xoolee mën na jegewaat weer mm-hmm. noonu lay dundee vingt et une heures et quelque tëddi na mm-hmm. quatre heures du matin yeewu na mm-hmm. boo yoree kurus mënoo ko nuyu bu mu naa la hmm, hmm, hmm. nga xam ne que ci diine nga ko xame est-ce que comprendre wax léegi nga xamaat tamit euh, Ndey Jóob di magu Habib Mm-hmm. ca kër eh, Bawal eh, mm-hmm. Pape Bawal. Mm-hmm. Eh, ak Assa ak Taaxa Taaxa États-Unis ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Taaxa Diop ak Assa Waalo. gërëm nañ leen ñoom ñëpp ak ah, waa États-Unis ak waa ñu nekk foofu yëpp ah. ñoom Marème ak kii Abdoulaye Sylla léegi ñoom ñii xam ne que dañuy dem Dubaï. di jënd di ñëw di liggéey nga xam ne que ci diine. Pastef lañ ci am ci liggéey Pastef lañ ci am. ñu dem ba deux mille vingt deux Dubaï rek bi mu xewee yàggul ñu dem ba deux mille vingt deux TikTok soog a xew. am ñu fay jógee di dem ñu ñëw rek ñiy dem Dubaay ñu bëgg a wax ne léegi képp kuy dem Dubaay mbaadu nii nga fa nekkee fekk ñu soxor ñooñu. Mhm. ñooy yàq ñi nga xam dañoo tardé xam ay wax dañ banc de touche bi leen di toog. foo fekk tokkatu banc de touche wax rek la ni man. Mhm. léegi nag bu ñëwee ne yii Dubaay kay ëpp naa dem nangam nangam dara baaxatu fa fekk Dubaay ña fay dem di liggéey ñu ngi liggéey te yàlla tax. Mm. ñooñu dañ leen war a état da leen war a jàppale. Mhm. dooleel leen bu dee dañ leen di fay impôt ki tax ñu wàññi leen ko. Mhm. ngir góorgóorlu googu jigéen ñu man góor leen. Mhm. léegi bu ñu bàyyee ba heure bi ñu xool dara lu xew ci Dubaay lu bon bëgg a maas noonu gi. wax ci lu bon loolu du ñu neex. du ñu neex est-ce que comme daanaka li tax ma gën la indi nii mooy wan bu jigéen di mel nii di yaakaar dara ci góor. jigéen a ngi di góor góorlu ci liggéey ba bàyyi yenn salaire yu duun ngir dem ak boppam ngir jëriñ réewam. côté boobu ban xalaat nga ci am ci jigéen boo xam ne que day góorlu euh, ak jigéen bu dul góorgóorlu ba yàq deru kuy góorgóorlu. Mhm. Euh, damay rejoindre image Sénégal bi yàq damay rejoindre li nga wax. Mhm. parce que pour man mbon nekkul du baay mhm. nekkul Chine nekkul feneen. mbon fépp la nekk. te fu nit bëgg a nekk ba bon. foofu ngay nekkee boneef. jarul dem Dubaï jarul dem feneen parce que nag góor gu am xaalis moom amul Dubaay kese góor ñi am xaalis amul Dubaay kese. am na Sénégal am na fépp. Mm-hmm. te loolu moo feeñ. Mm-hmm. waaye la nekk feneen xay na moo raw. Mm-hmm. donc ñi nga xam ne nag ñoo bëgg a yàqu image Dubaay ak ña fay dem. ñooñu man li ñuy def félicité wu ma ko. parce que man mii wax dëgg yàlla. dem naa Dubaay ba taay. te jëndu marchandise moo fa yóbbu. ñëw jaay sama marchandise. te am na si samay morom yu bari yoo xam ñu ni fanaan ci aéroport yi. di jël seen tissu di ko lal ci aéroport yi. pour am fuñ tëdd bu buñ ñibbisee bëri si su tuuti lañ ciy am wala ay nit lepp leen ko te duñ ko fay ay jàmbaar lañ mm-hmm. ay jàmbaar lañ yor seen i kër di dawal seeni oto te li ñuy am dañ koo ñàkk kenn mayu leen ko mm-hmm. donc yàq der nag moom fi dañ ko fekk fi dañ koy bàyyi xëy na itam am na am nag mbon mais mbon gi moom fépp la bon bi fépp mbon moom fépp la am te dañoo mm-hmm. toll ci aaxiru samaan mu jug jamono mu jug jamono damaa déggoon mag mu baax ne axiru samaan danañ dem ba gis comportement yoo xam nit xalaatul woon ne dina am ci àdduna te loolu la ñuy dund nii mm-hmm. donc nag comme kenn ku ci nekk daal jéem a la xool yoon bu baax nga féete fa nga féete fa te bañ a sa morom li muy def ndax mm-hmm. ñay def loolu man du ma leen du ma leen dénigré ndax ñoo xam fañ jaar justifié wu ma leen nag waaye mm-hmm. ñoo xam fa ñu jaar bay def la ñuy def dara mënta justifié li ñuy def nag dara mënu koo def mais dara mënu koo justifié mais buñ ci profité di yàq jigéenu deru jigéenu sénégalais bi fii ay batante ñoo fi nekk ay liggéeykat ñoo fi nekk man loolu laa. parce xam naa fa ay ñoom Fatou Cissé. waaw ay ñu jàmbaare ñu baax ñoo xam ne que ñu ngi foofu. ñu liggéey seen liggéey Cheikh Omar. xam nga dafa am ñu baax ñoo xam na que. Euh, ñi ngi Dubaay di dem di ñëw. di liggéey waaw di liggéey yor seen njaboot tamit euh, tey bi kuy fësalati lu bon. bul gis lu bon loo xam na que 2 pour cent koy def nga yóbbu ko ci kaw. généralisé 80 pour cent di ko def. généralisé waaw loolu day ñaaw lu bon moom nañ ko kon ne nëbb lu baax ñu di ko mhm. def mhm. yeewu leen nit day eh, sàmm image su réewam te di man nag man ba léegi nag gëmagu man Sénégal dugg na ci loolu de parce que bu dee yeneen mbon yi mhm. parce que yow seetlul am na jigéen ñoo xam ne que jaaytaar gin doon boo naanoon ci kaas sax jox leen tam ñu seexlu ne te yaa leen gën a set de tem ñu mel ne waruñoo naan ci kaas boobu wutal ma kaas ACT baneen léegi kooku war naa mën a dem jël boppam di ko jox xaj kooku war naa dem am naar di dem ginnaaw kër ci ci gémmiñ mais kooku kooku yow bu la fayee transfert Neymar du sax jaru ko <laughs> te àddina yi xaalisu àddina bi banque mondiale di xaar lu génn xaalis bi génn ci tàng tàng ñu lay jox Mati Thioune sama au passage sama xarit bi banque mondiale liggéey sama ah. meilleur ngi liggéey banque mondiale banque mondiale nuyu waale waaw koy nuyu nit ku baax ku ma taxaw ku ma jàpp Mati Thioune Mati Thioune Mati Thioune nuyu nga ko bu baax a baax da ngay nuyu ku la neex nag Mati maa ngi lay nuyu mhm. man na maa ngi nuyu sama benn xarit euh, <laughs> Jibril Fall DCLCS loolu maa ngi nuyu xaritam boo xam ne que tamit euh, moom conseil Macron la comprendre wax man Macron la après biroom mag bureau Macron dend ba mooy ñëw France seet si Macron euh, Ibrahima Ndiaye yow laay ñëw gis ma nga tegal ma ginaar Macron dem lekk ceebu jën man ma lekk ginaar yow Ndiaye nga yéen ngeen toog foofu mooy loolu quoi. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu Ibrahima Ndiaye bu baax a baax nuyu nañu ko tamit ak euh, nu mu tuddati Omar xaritu DC Jibril Fall ak madame Fall. Mm-hmm. ak Mbabba. ak Mara Ndiaye ak Rama dara ak Papi Papi di ko gërëm ci diplôme bu baax a baax Papi Masek Ndiaye ak mm-hmm. Alassane Alou seen Alassane nekk ca 7TV. Euh, mm-hmm. gërëm nañ ko bu baax a baax ñi nga xam ne que ñi ngi kii daal. kon di leen wax ne daal mm-hmm. jigéen fu man di dem ngeen amaat ci beneen xel tamit jigéen ñi dem tamit parfois mën nga am benn autorité. wala benn footballeur wala ku am xaalis. bañ a nekk fii di fo nit ñi naan ko gis nañ la feeg yooyu mu ja daggal la bee yóbbu la ngeen dem caaxaani. nga pare nag gis fa yeneen naar yoo xam ne que ñii xëy na wàllum financièrement ñoo ëpp doole kee ëllëg xam nga yoon yi nga daggal sa bopp dem de sens la. boo demee sax lu bon loolu loo fa def yow la. yoonu kenn nekku ci. mais duñ bëgg wax ne daal ay côté yu ñaaw yi ñuy jox Sénégal ëpp na nan xool lu rafet ci Sénégal ñu koy wax naan ay Sénégalais yu mel noonu ak et puis di nappaate ah, liste bi nangam ak nangam bu ko defee di nga jël doomu jàmbur tudd ko ci loo xam ne que. waaw rumeur dëkk rumeur la nekk quoi. la moom man moom gëm ma ko moom ba fii may wax yow gëm ma ne Sénégalais dina def leen li waaw pays africain yi nag li tax may wax. Mm. mas naa seetaan benn seenu Congo boo xam ne que. Mm. kooku dangay ngay woote téléphone mu wax la mu teg ay seede yi nii ci wàllum sëy position bi nga bëgg mu teg ko comme ni nga naan may ma <laughs> mooy Pape Diouf wooy ma wala may ma Wally Seck xam nga jigéen bu sañee toog ci télé bu nekk ci réew di ko def en direct nit ñi woote. Mhm. kon ñooñu seen éducation duñ ko naw. mais ñun nag danoo am sañ Touba. Mhm. am Baye Niass am Limaamu Laay am danoo am ñu ay valeurs yoo xam ne que ñoo téye ci dëkk bi pour wan pour te dire su maam yi ñi doon yënguti ci yéen lépp tubaab bi am na ndam ci ñoom ba mu des ñi doon yënguti ci diine diine bi moo téye réew mi moo tax coup d'état mosu fi am leneen mosu fi am. Mhm. léegi na nan ko sàmm nag parce que Coupe d'Afrique mosu fi am te am na fi kon nan sàmm li mag ñi liggéey. Euh, ba du yàqu. parce que fi nekk nii gis nga bërëb bi mën a defaroo moo gën a gaaw ci nun fa yàqu. yow léegi projet yi nga dëgmal nag yàlla yàlla. projet yi ma dëgmal bari na. Mhm. Euh, bari trop waaye pour l'instant ma maa ngi concentré wu ci ci Maggy mhm. parce que damay gis ay comme li may def man am na ñoo xam ne xaw nañ koo ndróole ma ak ñoom te duñ ay sénégalais. Mhm. bitim réew lañ jógee ñoo installé seen société. te man li may def daanaka xaw na méngoo ak ñoom. te doole ji ñu am xëy na ñun amaguñ ko. Mhm. di am doole bu soobee yàlla moo tax ma bëgg a focaliser wu ci ci magi fas. Mhm. imposer suñu bopp xam ne fii Sénégal am na fi ay doomi réew moo xam ne liggéey donc moo leen ñor. Mhm. te li leneen li leneen di di di fi indi. am na fii. am na fii lu ñu juste de voilà de le vouloir et d'aller le chercher parce que man loolu laa gëm. gëwuma échec. léegi kon euh, maa ngi def dañuy dem xooli Daour Diallo. waaw muy TikTok day TikTok. day TikTok. waaw parce que tiktokers tiktok bu góor nu ko waxee. tiktoker la tiktoker. <laughs> tiktokers ah. ak Boubacar Faye. ah tiktoker ok. tiktoker daal yu am solo lay def ci tiktok man sax damay dem xari matt ci moom parce que ay wàllum soble léegi yëpp lay yëngatu. ak business ah? bu ñëwee dina ci mm. ñu dem xooli Daawur Jàllo ak Boubacar Faye. Mm-hmm. Touba Daaru Karim Pëna. waaw Touba Daaru Karim Pëna ñu def ay témoins ci yow. Mm-hmm. ñu dem ñëwaat. Daour Diallo. Mhm. ñu ngi lay ziar. Daour Diallo bu agro business borom TikTok bi. Kër Matar Gueye Daour Diallo. Hmm? Kër Matar Gueye. Kër Matar Gueye. Mhm. bu Kër Matar Gueye Kër Matar Gueye fan te fan la nekk. après Pout. après Pout. Mhm. nga yëngatu ci wàllu mbay ak yëpp. yow jigéen bu man góor comme jigéen ñi léegi ñu bare ngi yàq deru jigéen ci Dubaay ak lu ne. jigéen buy di góor bii di góorgóorlu di soxna Maguette Mbacke. yéen seede nga nu mën a defal ci moom ci liggéeyam. waaw loolu ñu ngi ciy sant di nuyu waa réew mi yëpp di leen Mhm. Tektal TV di ñaan suñu borom defal leen lu kawe seen jot ndax c'est la première fois ma toog ci seen mhm. te itam xam naa dina am yeneen possibilité yoo xam dina ko mën a yombal inshallah soxna yi itam li tax ñu am yittee ci lii mhm. mi a a ñi léegi a am naan ay sénégalais mais wóoragul cent pour cent parce que mënaguñoo génn ni kii fale ne lii lay def te Sénégal la dëkk mm-hmm. mais nag ñoom ñi gën a neexum xel ci àdduna mooy mooy ñuy jëfandikoo loolu waaye nag xañ na góor ñi itam ñi nga mm-hmm. xam ni dañoo am taranga suñ borom may leen ko buñ koy xor ñoo ñël jigéen ñi Mm, ndax ñàkk dafa métti te mëne su ko dëkkee te nit bu yàggee ci ak ñàkk mën naa dugg ci dimension boo xamante ni bii donte bu dul jikkoom sax ñàkk ko ci dugal kon soxna si moom bu takkee ndiggam fas yéene mm. liggéey doon setub Serigne Touba mm. bu ko neexoon fa réew mi ma békk bépp jigéen bu nekk ci réew mi bul am complexe dem Dubaï na fa liggéey rek tax a jóg bu la liggéey taxee jóg rek leneen li ci amul sens parce que moom mi mën na dem Dubaï waaye bu takkoon ndiggam tey jëm Dubaï seen waa kër dinañ xam ne kii du ay matériel la fi wuti pour indi waaye demu pour yëfu caaxaan caaxaan nag fu waaye nekk mën ngaa ànd ak moom mm. bu ne mën na ko def ci façon bu ne waaye di ko fësal it daanaka du lu rafet te itam ñi tanante buñ dee dimbali ci réew mi mm. dina dem yu baree bari jigéen ñi dootu na ko sañ xaalis bi ñu leen di xor ñooñal ñu di ci teg bët mm-hmm. moo tax yu ci baree bari ak jamono fi mu toll mm. ku ci amul ndimbalu yàlla du jàmbaar nag ndimbalum yàlla rek lay doon mm. waaye du ak jàmbaar moo tax ku ci mucc jorogul ngay fëgg sa dënn yaakaar ni jàmbaar nga yàlla rek lay dimbali moom nag ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax ku baax la ku baax la yàlla ko yàlla taxawu seen waa kër it ñu baax lañu ndax comme am na opté liggéey liñ bëgg ñu utiliser ko ci réew mi tabarkalla daal moom yow agro business nag dina dugg foofu soble beeg mbay mi yow li nga yëngatu la man moom comme mi ngi ci affaire hôtel ak yooyu moom heureusement xam naa dina am quota moom soble dinaa koy jox mu di ko

kamaate kaani paparon boo ko doon lim fi la bët di sotti lépp mi ngi ci yow Tektal TV Tektal jërëjëf euh, mbokk yi seetaan Tektal TV ba léegi ñu nekk ak euh, Boubacar Faye Touba Darou Karim Pëna Touba Darou Karim Pëna Boubacar fay yan témoignage nga nu mën a defal ci seede ci kii di soxna Maguette Mbacké di doomu sëñ Moustapha Mbacké Gaynde Sébi ak liggéeyam waaw maa ngi leen di nuyu Mm-hmm. waaw yéen waa Tektal TV mm-hmm. maa ngi leen di mm-hmm. maa ngi leen di nuyu waaw man nag wax dëgg yàlla moom daanaka lii bu ma ko defee rek jëmm jee moo tax aji màgget waaw parce que wax dëgg yàlla ki na xamewu maa wax saaba yi génn ay télé waaw sax aji nag moom yàlla moo ñu boole yàlla moo ñu boole heure bu yeewoo rek te gisuma daanaka du am jàmm waaw te nag mu nekk jigéen joo xam ji tamit daanaka day toog day toog man di waxtaan sana man daal yàlla góor la ma war a def waaw te ma xam ko si moom mu takku mm. waaw di waxtaan lu muy waxtaane man nag waxtaanu liggéey dong lay waxtaanu liggéey rek mu nekk jàmbaar jàmbaar nekk jàmbaar fan yee ànd na man moom ak dawur ma leen mm. ci toolam bu demee muy vidéo tool bi di wax ay ambition yoo xam si mm. da nga naan kii góor la waaw nekk sama xarit nekk ku baax yàlla na yàlla moo tax ma déplacé jugee Sébikotane ñëw fii tey. Hmm. waaw. kon bi ñaanal ko ci bu baax daal ko ci barke. maa ko ci ñaanal moom parce que sama partenaire la te ku baax nga. Hmm. te dafa nangoo liggéey. macha loolu daal laa ci wax parce que ma waxee ay télé daal xam nga. macha allah waaw loolu di ah? di gërëm papaam nag. papaam sëñ Moustapha Mbacké waaw parce que kooku moom mën naa ne. Hmm. mën naa ne li sama xol sax mënuma ko wax. waaw parce que wax moom maanaam day day day nekk cëru cërum nit rek mm-hmm. bu la yàlla seegee mm-hmm. waaw mais li nekk sama dën daal pour sëñ bi man mm-hmm. naa ni mun ma ko wax mun ko wax mais dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla yàlla guddalu fanam waaw yal na yàlla guddalu fanam rek bàyyi ko suñu kanam waaw yàlla yàlla yàlla àggale li ñu yéene ci moom rek waaw jërëjëf jërëjëf Touba Daaru Karim Pënë moom lu fa nekk lu mu yëngu ci pënë waaw waaw Touba Daaru Karim Pënë moom hmm. dañuy jaay pënë hmm. waaw ay machine ay machine parce que dafa am machine lan machine yuy hmm. parce que xam nga dafa jamono moom day dox te puis euh, am gent yoo xam ci tamit waroo koo def ci ay démonté li li am lu njëkk yi daal léegi dañ ko dafa dafa xew pënë moom boo koy boo ko jaay ni di ko monté da nga koy monté si machine nga xam ne si du xoosu du def dara. du xoosu du def dara te am nga marque yi gën a mag. waaw am naa marque yi am machine yi koy démonté. Mm-hmm. waaw macha allah daal. te pneu camion yëpp am nga. waaw pneu camion waaw am naa ko. yëpp nga am waaw. kon joxe sa numéro. waaw 77. 77. 517. 517. 77. 77. 82. 82. waaw 77. 517 17. 77 82. waaw képp ku bëgg pneu bu muy wër ci réew mi rek. bu ñëwee ci am waaw Touba fii waa Touba Darou Karim. Touba Darou Karim Sëñ Moustapha lañ nekk. arrêt cinquante trois bi tataay ci Sëbi Xota waaw foofu lañ nekk waaw. jeex na kon képp kuy wër pono rek boo ñëwee di nga ko am bu baax a baax mm. incha allah. Mm. Euh, jërëjëf euh, soxna Maguette Mbacke di nga euh, wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñii xaw na la yëpp tuuti xaw na la tooñaale ñoom mm-hmm. Daawul Diallo. Mm-hmm. ak Boubacar Faye mais li la waxal nag. li la waxal nii dañ lay jey wala dëgg la dëgg dëgg li la waxal rëy na de témoignage bi ñu la defal nii. wala mbaax rek am solo ak liggéey waaw ñoom ñoo baax rek. Mhm. ñoom ñoo ñoom ñoo baax rek ndax euh, xoolee wuñ ma sax daanaka xale bu jigéen dañ may xoolee sëñ Tuubaa. te mënoon nañ ne kii kat gone gu jigéen la rek comme ki bàyyi suñu kër wala suñu rakk bu jigéen waaye wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa lañ ma xoolal. dañ ma xoolee. Mhm. su ma fu ma jógee ñu ñu ñu ànd ak man dara ma. te mhm. xëy na man duma kenn. nit ko woyof la ndax man sama baay ci loolu la ma yar. daf ma jàngal ne nit kenn gënu kenn. dama màgg gis ko ci liggéey. Mhm. me ci liggéey moo tax mhm. liggéey doomu laa gëm buuba fay mii ku ma yàgg a taxaw la lam mhm. ma xamal bari na néew na nit ñi ma ko xamal ndeysaan waaw lu may dugg dama ko dama ciy waxtaan ak moom lu ci ëpp macha allah lu may amul dara lu may def te xamaluma ko moom mi dara ma ci côté yëpp daawur mais itam teraanga lañ seq ndax wax dëgg yàlla lu mu bay jox na ma ci damay ànd ak moom sax te buubaa tax ma xam ko mu ne mu ne mu ne mu ne buuba bu soxna si buggul doo am mm-hmm. <laughs> waaw def nañ ko ba tàyyi mm-hmm. moom maa ngi koy sant di ko gërëm nit ku baax wa taalib sëñ Tuubaa ñu koy ñaanal yàlla mu yegg fa mu bëgg moom buuba fay borom Tuubaa Daaru nekk si Boxotaan ci sur la route nationale macha allah ret kees Tuubaa Daaru Karim waaw moom waaw ah sa waajur moom dañ koy gërëm bu baax parce que man xam naa yéene bi mu am ci ñun mm-hmm. garabu gura moom la di gis këram mu doon koo xam ne que baax la suñ lépp la gaynde sébi di gërëm Cheikh bas mbakke di doomu euh, yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla taas ci barkeem sëñ Abdou Baaxe mm-hmm. euh, soxna May Mbacke di mm-hmm. turandoo euh, di soxna Mayam sëñ Abdou Xaar di turandoo suñ soxna mm-hmm. wax dëgg yàlla mbas Bass Mbacke ak sëñ Moustapha gërëm nañ ko ak Abdou Baaxe Mbacke sëñ Abdou Baaxe Mbacke Daaru Salaam ak sëñ Abdou Baaxe Mbacke moom sëñ Cheikh ñun ñëpp ñu bokkoon daara Euh, ak galas bu sa sëñ naa bu sa sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Maam Moor moom sëñ fa moom sëñ Fàllu ñun ñu baax ñi leen bokkal euh, ñoom leen màggandool ñoom leen séqal lépp gërëm leen tamit euh, waa sëñ kii ba Amadou Sugg waa ñëpp ñu baax ñi xam ne que ñi leen jàng ci ngaay sëñ Modou Diop jàngal ñu sëñ Modou Diop ak sëñ Habib Diop yàlla nu yàlla taas ci barkeem te yàlla doole ko xaar àjjana nga xam ne que nit yi alxuraan mm-hmm. ñoom lan màggandool ñoom lan meññi kii lu baax rek lañ seex moo tax euh, danañ koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëñ Moustapha mhm. Mbacke moom euh, sëñ Modou Fatou Khari gaynde bi gërëm nañ ko bu baax a baax gërëm nañ tamit euh, waajuram bu jigéen nga xam ne que ñëw nañ def reportage soxna si ah. waaw sama maam ah, waaw mu ngi ko baax sax. yàlla yàlla gën a yokk mu sëñ Abdou Karim Touré. waaw mu sëñ Abdou Karim Touré. Ah. ñaanal ko yàlla defal ko xewal bu baax a ah. baax. kon daal léegi nga ñëwaat ci euh, application bi. Mm-hmm. ma joxewaat numéro bi ak tamit euh, ku la woo jot na baa jafe woo jot. ak sa Facebook bu dee am nga Snap lan la bu dee am nga Facebook bu dee am nga yëpp nga joxe ko. waaw yooyu yëpp dinaa ko waaye dama bëggoon nga may ma ma. gërëmal rek. ñeenti nit. ñeenti nit yuroom sax nit waaw. <laughs> jiitu mooy soxna Fatou Pouy. comme ni nga wax sama yaay soxna bu baax macha allah. waaw jigéen ju ma taxaw ju ma taxaw. Mhm. jigéen joo xam ne elle a toujours été la pour man. Mhm. sans demander de question rek. macha allah su ma amee problème wala su ma defee benn affaire. Mhm. dafa may soutenir. soutien boo xam ne man dafay da dafa dafa démesuré. macha allah waaw kooku moom ak mbaaxam ñëpp xam nañ ko. macha allah sax lu ñu warante. di ko ñaanal yàlla may ma. moo mën koo teral mm-hmm. li ma yéene sama biir xol ci moom man kese maa xam gis ma am sama biir xol jëmale ci moom man kese maa ko xam damaa gis nan la sonnee ci man te sama royuwaay la jigéen ju mën góor la pharmacienne la daf liggéey di fanaan guddi ndax ñun sonn ci ñun ci topp mooy di gërëm sama taaw yaay soxna maam Issa Mbacke mm-hmm. mu ci Touba ndax uuf nañu mm-hmm. taaw bu mat taaw la comme li ma wax sànq rek moom daanaka nopp la ma jox rek lu ma naqari moom laay wo wax ko hmm. amul dara lu may metti lu may dégg su ma ko amin hmm. waaye xam nga àdduna moom mook loolu ñoo ànd daanaka lu ma metti bu ma ko hmm. wooyee daf may daf may déglu wax ma li ci xelam daf may soutenir ci lépp itam te lu mu am bokk kook man mention spéciale aussi à notre avocate maître Mbacke nday bintu ñoo bokk nday ak baay mooy maître bintu Mbacke moo nàmp jox ma ma nàmp kooku moom elle est exceptionnelle soutenir taxawu hmm. doomu aadama moo ci hmm. mën ñëpp hmm. dafa bëri yërmande ndeysaan avocat bu baax nit ku wax waxuma ko parce que dama toog ci télé waaye nit ku bëri yërmande gi noonu macha allah yal ko yàlla waaw difficulté bu nekk itam fekk na ma ci moyen yu nekk dépensé na kon ngir man defal na ma lu nekk ci àdduna te fàttewu ma dara nit ku baax ñi noonu macha allah waaw Fat Bintu maa ngi lay gërëm tamit sama xulóowaale sama caatu yaay waaw moom moom bu mm-hmm. ko yónnee dama koy fay. <laughs> waaw moom itam ku nangoo sonn ci nit la macha allah. ku nangoo sonn ci nit la ku ma mm. nangoo taxawul. ku ma nangoo déglu ku ma jox cër ku ma respecté la. macha allah sëñ xaas. Mm-hmm. fàttewuma la. Mm-hmm. sëñ xaasi mbàkke sama rakk la. moom dañ koy sëñ xaasi mbàkke. sama la sama rakk la dama ko bëgg sama biir xol gi ñàkk Serigne Touba. dama ko bëgg sama biir xol. waaw di di nuyuwaale aussi ñëpp rek. ay soxna ummi Guèye. soxna ummi Guèye tudd ko la neex. waaw sama tante sama wujju yaay bu baax. Mm-hmm. kooku du sax wujju doom la. ndeysaan waaw nit ku baax. Hmm. nit ku baax sax ku jox sama yaay cër maa ngi koy maa ngi koy nuyu di ko di ko jox wàccuwaayam macha allah ku ma fàtte itam nag jàppal ne sama sama xel moo faay rek waaye sama xol maa ngi ci dugal ñëpp sama hmm. mbokk yëpp maa ngi leen ci gis naa aussi ni ngeen may soutenir macha allah waaw fu ñëpp maam aram Mbàkke sama taawu baay bi maa ngi koy sant di ko gërëm hmm. moom ñun ñun la def morom sax nag day nekk di di fow ak ñun di kaf ak ñun ak lépp ak suñ xaadim sama taawu baay bi itam muy suñu kilifa di suñu yoon ci sëriñ Safa suñu buntu ci sëriñ Safa itam ñu ngi koy sant di ko di ko gërëm macha allah kontaan bu baax man gërëm na sëñ Abdou Samad Mbacke son yi bu di suñ lépp di ko mm. baax euh, bëgg Tektal TV euh, lu baax ci Tektal TV tamit rek mi ngi koy def sëñ Moustapha Mbacke tamit caméra bu mu gis bi bii mm. Cheikh bii da ko bëgg lu mu gis ci àddina bi ne li baax na ci Tektal TV wax dëgg yàlla mm. euh, kóllëre bi ñun ñoo la deseel de mais yàlla na yàlla mottali rek bu baax a baax sëñ Moustapha Mbacke gaynde sebi di suñ lépp di la ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ko wér ba li yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa nga am ci lu kawe njort comme Pastef nga ci diina jéeg ci lépp ak rafetal ak bu baax a baax a baax a baax. ah Chérif yow dama lay sant. la Cheikh ah? moom Chérif la may dóor Pape. man maa man maa la bëgg a tuddee noonu. waaw ah, Chérif ab Chérif. waaw Chérif laa la bëgg a tuddee. daanaka moom lu ma bëgg wax sax dama koy xeeb ndax man du ma tricher. Hmm. wax li nekk ci man laa lay wax. dama hmm. lay sant di la gërëm ndax li nga ma defal nii dara nga weesu ko. Hmm. yëkkati sa téléphone man du ma kenn kenn xamuma. dama laa bëgg a sama émission lu may fay nga ne ma soxna si li ngay def dafa am solo dañ ko war a fël dañ ko war a wane. Hmm. sëñ bi loolu bareetul Sénégal de. alhamdulilah ñoo ko Tektal TV nag seen ñëpp la de. koo ci lim benn doo ci lim ñaar. Hmm. te sama xol laa ko tibbee yàlla na la yàlla ak Serigne Touba defal li nga bëgg sa xol. amiin amiin amiin li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla ak Serigne Touba defal. barke Cheikhul Khadim barke Cheikhul Khadim di la féliciter aussi maa ngi seetaan say émission te xam naa ne mhm. maanaam tegoo dara lu amul sens wala dara yaa ngi topp nit wane di wane li làqu ci yaa ngi koy wane ñu la ci sant la gërëm a baax waaw yokk ñaan daal ñaan yàlla yàlla gën a barkeel sa liggéey ak mhm. képp kuy jigéen buy góor góorgóorlu mhm. yàlla defal lu kawe njort ci sa liggéey bu baax a baax képp ku nekk ci leneen loo xam ne ko rafetul yàlla soppi la nga nekk ci lu rafet bu baax a baax nit ñi nañu bàyyi Sénégal di yedd nit conseil nit moo gën yedd nit da seen koo xam ne que saa yi xale bu góor la war a takk jabar bëgg am néeg wala appartement wala kër bëgg lu baax amu ko nga ñëwaat nan ko fasal jom li nga def du yoon nangam noonu yaa ngi ko indi beneen problème parce que nit nag lu mu bon bon moom moom bëgg faj soxla mu sotti bëgg na ko moo tax nañu moytu di yedd nit tey conseil nit di ko corriger di ko critiquer Sénégal nag dañuy jaawale yooyu mm-hmm. critiquer parfois ku soxor mën na la wax dëgg nga soxor mën na la mën na tamit soxor di la critiquer pour nga bàyyi sa lu baax lépp ngi ci mais xam lu baax boo ko defee xam nga ko lu bon boo ko defee xam nga ko mhm. nit ki da dëgër mhm. même bu lay xeex dëgëral ci li nga nekk bu baax a mhm. baax a baax jërëjëf kontaan bu baax a baax kon euh, yoon bu mujj ma joxe numéro bi application bi ku ci dugg nga def euh, fas point com ah. magifast point com ngay hmm. dugg google hmm. mooy google waaw foo hmm. dugg rek Mm. même safari iphone foo dugg di boo tàppee Maggi Fast dina mm, génn dina génn voilà incha allah application bi aussi mën nga ko télécharger sa téléphone ak fépp téléphone yi yëpp nga ko télécharger incha allah ah, mais numéro yi whatsapp yi di nga wuyu bu baax dinaa wuyu bu baax whatsapp bi boo duggee di nga gis logo société bi whatsapp entreprise la donc ku mu bind ci saa si dinañ la répondre kon defal 78 532 22 22 78 532 22 22 76 452 35 35 76 452 35 35 magi fas soxna Maguette Mbacke nekk ci lépp loo bëgg ci looy oto kër Euh, hôtel ak. Mhm. limousine ak lépp incha di nga ko am bu baax a am nañu Facebook am nañu page Facebook. bu active sax macha allah. waaw ci presque 3000 abonnés. Mhm. donc euh, Facebook bi aussi boo tapee Maggy Fass di ko gis Maggy Fass nga ko gis ok. Euh, am nañ LinkedIn. LinkedIn waaw boo duggee sur suñu LinkedIn di nga gis publication yi ñuy def foofu. Mhm. soo duggee Instagram aussi. di nga ko di nga ko gis. Instagram ban tur. Instagram Maggy Fass Maggy Fass yëpp Maggy Fass Twitter aussi pareil. waaw ah, Maggy Fass yëpp aussi. macha gërëm nañ sëñ Fallou Mbacke Diop di suñ xarit di alaaji suluxu xaritu alaaji suluxu Ndiaye ak Ousmane Lota gërëm nañ ko bu baax a baax a baax xaritu Abdou Diallo ak Vinicius ak euh, Benzema waaw nga xam Benzema bu ndogoo ñetti tàndar ma sax sëñ Fallou ñetti tàndar ma lay ndogoo gërëm nañ tamit soxna Zeynab Diop gërëm na soxna may soxna May Diop gërëm na tamit euh, mami d'enfant France Ousseynou Ly Allemagne Fat Diop Amérique gërëm nañ tamit Penda Fall euh, France gërëm na Cheikh Naar Fall gërëm nañ Sayer Fall Espagne euh, ñaañe Dia Allemagne gërëm nañ ñëpp ñi bëgg Tektal TV bu baax a baax a baax Omar Diallo Angleterre euh, gërëm na tamit euh, Daour Diallo agro business borom TikTok bi Daour jàlloo ak tamit gërëm nañ Boubacar Faye Touba Daaru Karim Pëna di lépp di jàppale ci liggéey bu baax a baax soxna Maguette Mbacke gërëm nañ soxna Moustapha Mbacke gaynde Sébi gërëm na ñëpp daal xewal dikk loraange dakk kon application bi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax maa ngi fas nga am lépp gërëm nañ tamit euh, équipe technique bi di àndalu Mohamed doctor Wade bu Casamance nekk ci Petit Sow Gaw Sow nekk ci Bama Samba jóg nekk ci Soxna May Diop réalisation teg Tektal TV tele di ko toll fii lépp luy njëriñ ñu fésal ko bu baax a baax lu bon soriñu xewal dikk loraa ngi dak